2020 li ko ëmb mooy changement bi nga xamante ne nii euh, Sénégal dina ko def ci mode bi nga xam ne moom lay euh, dérouler budget UEMOA daf ñu jox ay directives yoo xamante ne nii jox ko pays yi nga xamante ni ci la bokk Sénégal tamit bañ a des ginnaaw appliquer directive yooyu directive yi mooy ñu dem ci budget programme budget programme mooy buñ la joxee xaalis ngay liggéey da nga koy wéer fu wóor foo xamante ni nii da nga naan lii laa ciy def programme sangam laa ci tëral ñun nag ci programme yooyu ñu am ci ñeent benn bi di euh, éducation à la citoyenneté et la promotion du volontariat benn bi mooy promotion socio-économique des jeunes benn bi di protection sociale euh, des jeunes et la gestion de leur groupement beneen bi di euh, pilotage ak gestion administrative bi ñu ñëwee présenté ko député yi mais programme yooyu yëpp dañ koy wéer ci plan Sénégal émergent bi nga xamante ni président Macky Sall teg na ko fi loolu moo taxoon ñu ñëw fi tey bi ñu ñëwee itam euh, député yi question yi ñu fi posé yu am solo la pour askan bi yu am solo la pour ndaw ñi euh, li gën a ñëw ci question yi mooy euh, CDEPS yi nga xamante ni dañoo màgget muy dëgg itam parce que CDEPS yi ku nekk xam na ni ren mooy am mooy nekk juróom fukkeelu atu CDEPS yi CDEPS yi am nañ cinquante ans président Macky Sall am ci vision bu leer mom mo pro mu proposer askan bi ba askan bi voter ko limu proposer won moy maison citoyenne de jeunesse euh, maison citoyenne de jeunes yoyu daf ko nar ci département bu nek et que lolu liggéey bi

Nous avons wax projet promotion des jeunes PPJ, PPG projet la nous avons depuis 12 ans D'ailleurs, nous avons d'ailleurs ambition érigée en agence pour que nous puissions répondre aux attentes des jeunes euh, en tout cas pour la promotion de la santé de la reproduction